du matin euh, Serigne Mamour Mbacke dikk ak yéen ci seen émission yóbbalu jullit ginnaaw pàcc bu njëkk bi ci actualité bi ñu jàll ci li ci topp. leneen la ca topp rek mooy ci kanam tuuti daañu fas yéene indi thème bii ñu fas yéene waxtaani ginnaaw rajo service bi mooy li nga xam ne moom la ñu dëgmal xam ngeen ne seen émission yóbbalu jullit nag baaxoowul di am ay invité waaye des fois ñuy def invité surprise tey ji nag am nañu invité surprise boo xam ne ci kanam tuuti di ngeen découvrir mooy kan ku am la koo xam ne Sénégal ak àddina yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ci kanam tuuti daañu fas yéene waxtaanee ak moom bu rajo euh, service bi jeexee buñ ca noppee daañu leen tegal gistu bis bi mu di ci jàngat bi eh, ci xasaytu ko tedd ki di Cheikhul Khadim tey jële gis bu bees tàq la bu ñu mën a déglu eh, ci kanam tuuti ñu ci ànd ak Amady Ndiaye ak auditeurs ak auditrices yu rajo Futur Media bu ca noppee soobu ak ci ñaareelu pàcc bi mu di yóbbalu bis bi mu ca noppee tëjël leen émission bi la ko jiitu téléphone ba ca 88 la 628 14 14 bu ñu noppee nag suba ak jàmm RFM weekend moo fi ñëw ginnaaw bi ko ca samedi bu 23h jotee El Hadj Mamadou Ndoye dana fi ñëw ci seen émission thème de la semaine lii mooy programme rajo Futur Média li des ci weekend bi yàlla yàlla lépp yeyoo nga walaka alhamdu ya rahmaanu rahim jërëjëf Amady Ndiaye ñu tàmbalee nuyoo bi ci mboolem kilifa diine yëpp ca dëkk bu sell bale di Touba Mbacke lañ koy tàmbalee ak xalif général mu yi di Serigne Mountakha Mbacke Bassirou ak mboolem ñamu seqal liggéey ba xalif général bu Tidiane yi itam di Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem ñamu seqal liggéey ba ak mboolem xalif généraux yëpp ñu ngi ñaan suñu borom mu yàggal leen fi bu baax a baax te wéral leen ñaanal ko bu baax suñu kilifa adduna yi mu di président di la république ak i jawrinam ñaanal ko itam suñu président conseil d' administration bu groupe Futur Média mu di Youssou Ndour ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi file ci groupe Futur Média nuyu bu baax it ngeen baal ma kilifa aada yëpp borom kër yi soxna yi jaboot gi ba ci surga yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax salaamaaleykum di ndokkeel ñi amee mbégte ñi ñi naqar yi itam ñu leen di masaw ñi feebar tëdd seen kër wala sax ñu tëdd ci lali hôpital yi ñi amee jafe ak ñi seen aju faju amadi ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum yema jéetal bu la neexee jéggal ma tooñ ci yoon wi matadi fii la yam fi man yow kamaal nga doye man la bul ma bàyyi jërëjëf salaam Kabir Sène ñu koy gërëm bu baax di ko sant Amady Ndiaye yow itam jërëjëf a ca kon ñu nuy lépp lu yëngatu ci réew mi lee tàmbale ko ci kër docteur mu di paj département bu mu ci man di doon ñu ngi leen di wax salaamaaleykum ni ki noonu itam sécurité ak défense de la république mu di mboolem koox yi nga xam ne yëpp moom moo ko composé ñu leen wax salaamaaleykum association itam di jàng ak jàngale moo xam ci wàllu diine wala ci wàllu àddina jënd ak jaay di commerce dem ak dikk transport communication salaamaaleykum. Eh, tey jii ni may bon kay bon simla ak saal nga def ma may gën ca ñu daal di jeexal tàkk nag wàllu nuyoo bi nuyu suñu mbokki wolof yi di leen ñaanal guddi jàmm. Euh, pël yi ak euh, tukkuloor yi jamhiir yi séeréer sinaaf yo ngiro po joolaa yi koti yom ko li ñoom ñoom dee saafuñ euh, soose mandi mandinkoolu saraxule yi xale la bambara yeeg soninka yeeg mandinka yi avinitile français yi bonsoir anglais yi hawaar yu italien yi bionasiera arabe yi masa ul xayri siin waayi wàncang ni haaw enda yi salaamat malam dellu ni nuyu murid yëpp di waa kër Seexul Xadim Tijaan yi di waa kër Seex Seydi Haaji Malik Si xaadir yi di waa kër Seex Abdou Xaadir Jeylaani laayeen yi di waa kër Seydina Limaamu Laay ñaseen yi di waa kër maam Abdoulahi Ñas canaba canaba di waa kër maam Amari Ndaak Seck waa kër Cheikh Omar Fouti Tall salaamaaleykum suñu mbokki jàngo bi di catholique yi dem Guèye nuyu naa la yow na nga may def jaam ngi tey bu tooñ yi mu jaamu jërëjëf Amady Ndiaye leneen la ca topp rek moom moo di waxtuy julli ci mboolem senegal gi yëpp ak li ko wër ñu fàttali leen Eh, bés bi la ñaar fukki waxtu la ak ñeent di junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci ay minutes di juróom ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ci ay seconde ñaar fukki minutes ak juróom benn rek la ca julli amu di ñetti minutes suba juróom benn minute tisbaar juróom benn minute tàkkusaan juróomi minute timis ak juróom benn minute gee buñ ko boolee mu di 26 minutes

la ville sainte Touba Mbacké ak mboolem xeson Diourbel yëpp suba ak jàmm 5h45 la ñuy julli suba tisbaar 13h18 takkusaan 16h18 timis 18h44 euh, ti takku euh, gee 19h55. Euh, Fatick di dëkku président Macky Sall ñoom suba ak jàmm 5h47 la ñuy julli suba tisba 13h20 takkusaan 16h20 timis 18h46 gee 19h57. Louga loo di kër mbër gu bale ñaan ñoom suba ak jàmm 5h43 la ñuy julli suba tisbaar 13h16 takkusaan 16h16 timis 18h42 gée 20h 19h53 minutes. Kaolack Ndangan ak Medina Baye ñoom suba ak jàmm 5h47 la ñuy julli suba tisbaar 13h20 takkusaan 16h20 timis 18h46 gée 19h57 minutes Kolda ñoom suba 5h40 la ñuy julli suba tisbaar 13h13. Amady njaay bu ma nee treize treize loo sa xel di dem Mamadou Mohamed Ndiaye <laughs> ca kon borom treize treize ñu ngi koy ndokkeel kon waa Kolda ñoom suba ak jàmm tisba treize treize lañ koy julli takkusaan seize treize timis eh, dix-huit heures trente-neuf ge vingt heures eh, dix-neuf heures cinquante bok ngeen baal ma Matam ñoom suba ak jàmm 5h40 la ñuy julli suba eh, Tisba 13h13 Takusaan 16h13 Timis 18h39 Gee 19h50 Saint-Louis Ndar Géej dëkku El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert waa kër Mala Signor Diagne joojule ñoom suba ak jàmm 5h43 eh, la ñuy julli suba Tisba 13h16 Takusaan 16h16 Timis 18h42 Gee 19h53 minute Tambacounda ñoom suba ak jàmm 5h37 la ñuy julli suba Tisba 13h10 Takusaan 16h10. Euh, timis 18h36 ge 19h47 minutes Thiès kaay benn dëkk yaari gaar ak Tiwaawan la ville sainte dëkku Cheikh Seydi Hadji Malick si bàyyi Serigne Babacar si ñoom suba ak jàmm 5h49 euh, la ñuy julli suba tisbaar 13h22 takkusaan 16h22 timis 18h48 ge 19h59 euh, Ziguinchor di dëkku Malem Vito Sonko ñoom suba ak jàmm 5h47 la ñuy julli suba tisbaar 13h20 takkusaan 16h20 timis 18h46 ge 19h57. yàlla buur la fela mbég yam amal na mbaax teg ca mbaaxim mënu ñoo min xëy daal di tënk rek leneen la ca topp Amady Ndiaye fàttali leen suba ak jàmm moom moo di fukki fan ak juróom benn ci weeru rabi awal dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre ci atum 2021 kon suba bokk na ci bis yi nga xam ne rek dañu koy moytu kenn du ci sanc kenn du ci tukki foot daloo lu bees takk ab sëy tàmbali dala xarafal wala watu yooyu yëpp dañ koy moytu ci bisub suba bi samedi le 23 octobre 2021 di fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmmu gannaaw bañ ca noppee sodi euh, le 28 octobre 2021 di ñaar fukki fan ak benn ci weeru gàmmu itam dañ koy moytu euh, dimanche 31 octobre 2021 di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru gàmmu it dañ koy moytu. octobre jeex na mardi 2 novembre 2021 di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre dañ koy moytu mercredi itam la 3 euh, octobre la 3 novembre 2021. Euh, dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ki weeru gàmm itam dañ koy moytu fàttali leen vendredi le 5 le 5 novembre 2021 mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmm bis boobu la ñuy séntu weeru rakk ci gàmm bu feeñee jeudi le 6 oct euh, le 6 novembre mooy bis bi njëkk ci rabihu sani bu feeñul. dimanche la 7 novembre mooy bis bi njëkk ci weeru rakki gàmmu ak Amady Ndiaye leneen la topp rek xam naa sax tey foofu la jeexale daal di mën a soobu ci li nga xam ne moom moo di invité bi euh, fàttali leen euh, population de la euh, pourcentage de la population mondiale bi ci zone démographie ak population yi nii lañ ko tënkee ci àddina wërngal këpp ci wàllu pourcentage ak ci wàllu nombre fàttali leen adduna bi yëpp boo leen boole ñu ngi toll ci 7 milliards mu di yi juróom-ñaari milliards yu tegal juróom-ñaar téeméeri juróom téeméeri junni ak juróom-ñeent fukk ak eh, juróom-ñeent nii la la séddale ko ci àddina ci continent yi Asie moom moo ci jiitu ak 4 milliards 641 millions 55 mille eh, mu di 59 virgule 5 eh, pour cent continent bu Asie ñeenti milliards ñoo fa yeewoo yu teg juróom benn téeméeri million ak ñeent fukk benn yu teg juróom fukki junni ak juróom ci pourcentage bi juróom fukk ak juróom-ñeent yu tombal juróom la Afrique 1 milliard 340 millions 598 mille euh, mu di 17 virgule 2 pour cent ci population mondial bi euh, mu di benn milliard yu tegal euh, juróom benn ñetti téeméeri million bokk ak ñeen fukk yu tegal juróom fukki junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mu di téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar yu tombal ñaar ñoo nekk file ci diwaan bu Afrique Europe 747 euh, millions 636 mille euh, mu di 9 virgule 6 pour cent juróom-ñaar téeméeri millions yu tegal ñeent fukki millions ak juróom-ñaar yu tegal juróom-benn téeméeri junni ak fanweer ak juróom-benn juróom-ñeent yu tombal juróom-benn moom moo di pourcentage ba ca wolof Amérique latine moom moo ci topp ak 653 millions 962 euh, mille mu di 8 virgule 4 pour cent téeméer. ci wolof juróom benn téeméeri million ak ñeen fukk ak juróom eh, ñeen fukk eh, juróom benn téeméeri million ak juróom fukk ak ñett yu tegal juróom ñeenti téeméeri junni ak juróom benn fukk ak ñaar mu di juróom ñett yu tombal ñeent États-Unis ak Canada la fa yeewoo 368 millions la 870 000 mu